mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak réew mi FM daleen ak jàmm ci seen émission démb ak tey nañu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi tey nag euh, ni ngeen ko déggee ci annonce bi euh, dañuy waxtaanee ku ràññeeku woon euh, nekkoon itam koo xam ni ku dox lu am solo la diggante Sénégal ak yi di ñaari réew yoo xam ni li leen boole bari na lool. Moussa Ngom mi génn àdduna fukki fan ak benn weer octobre atum 2015 euh, tey si dimanche bi yemo ak juróomi at euh, ginnaaw bi nga xamee ni euh, faatu na moom la ñuy waxtaanee am nag mbégte mu rëy dalal ci ku ko xam lool jëflante ak moom jaar ak moom aussi fu bëri di Dembel Diop artiste compositeur nekkatul ku ñuy présenté ci Sénégal Dembel ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal ci Demb ak tey ngir waxtaanee Moussa Ngom waaw jërëjëf euh, Fatou maa leen di fay euh, di nuyu auditeur u euh, Rewmi FM yëpp ak waa Sénégal yëpp. Mhm. jërëjëf. jërëjëf mhm. Dembel ni ma ko waxee Moussa Ngom mi ñuy waxtaanee nag li waral ñu taamu ko mooy artist la bu ràññeeku woon marqué aussi jamonoom bàyyi fii itam loo xam ni kenn dootu ko fàtte muy li mu dox diggante Sénégal ak Gambie mais balaa ñuy ñëw ci aspect diplomatique su ma ko mënee waxee noonu entre guillemets su ma la ne woon tey kan mooy nekkoon Moussa ngoom loo nuy tontu Dembel. waaw Moussa Ngom euh, yàlla na ko yàlla yóbbu aljana yu yu kawe wax dëgg yàlla nit ku baax la woon wax dëgg yàlla kuy wax artiste accompli moom la woon ah, nit ku nga xam ne la wax dëgg yàlla woyofoon ah, nekkoon murid sadeex nekk taalibu Sëñ Tuubaa lool gëmoon loolu ba noppi lu gënoon marqué ci Moussa mooy que c'était moi je peux dire que c'est le c'était chantre de la Sénégambie parce que moom lu gëmoon la di ko matérialiser fu mu toll parce que Sénégambie bi moom euh, le fait que mun jàpp ni moom Sénégambien la donc loolu dafa nekkoon ci moom lu nga xam ne man moo dafa ma yéemoon daf ko doon matérialiser ci solam ci waxam même ci dundinam yëpp donc euh, Moussa daal lu doon nit ku doon wax lu baax ci moom daal vraiment euh, dañ mënuñu ko jeexal parce que vraiment c'était un homme vraiment pétri de talent pétri de d'humanité ak lu ñu bëgg lu ñu mën a wax ci moom yëpp wax dëgg yàlla mooy mooy Moussa Ngom daal wax dëgg hmm. yàlla kañ nga ko xam Moussa Ngom man maa ngi ko xam 1990 euh, dama jóge woon euh, Paris euh, parce que dama ne moon def benn tournée bu xaw a yàgg foofu de six mois bi ma ñëwee fekk am na moon super jamono bi éclaté woon après ñoom Lamine Faye créé benn benn atelier la jub lañ ko tuddee boo xam ne dama leen fekkoon ñu doon joué ak Moussa bi ñu yëgee nik que ñu ngi doon joué ak benn bassiste bu ñuy wax Euh, cumulativement Itu dafa doon joué ak ñoom ba pare di joué ak Kinelam mais comme dafa doon xaw a perturber un peu seen plan seen planning ñu yëg ni maa ngi fi ñu wooma parce que boobu dafa déggoon démbel démbel rek démbel rek après mu ne ah dégg naa kuy démbel ñibbi si na de gars yi wooma fekk ñu ngi doon répété euh, zone A je ci ba ci buli foofu euh, après mu ñëw foofu fekk ñu ngi doon def en à cette à l'époque benn album ñi ko doon préparé bu ñuy wax Banjul mm-hmm. ci laa ñëw nag intégré voilà ñu commencé jouer ma jouer rek mu ne noonu mu commencé mu ne ah kii mi ngi tudd Dembel Lawzo bon xaw ma nag lan mooy Dembel Lawzo Dembel Lawzo boobu la la law na ba finalement ñëpp ñu ñu ma ñu fekkee loolu ñoom Lamine Faye ñëpp ak ñi ko ñu wóoroon loolu ñoom Lawzo lañ may tuddee. donc euh, su ma ko bëggee wax lan mooy Lawzo mu ne ma yow daal yaay Dembel Lawzo xaw ma lan mooy loolu. <laughs> Euh, donc foofu laa ko xamee de plus bel album boobu Omar Omar kii euh, Lamine Faye moo ko arrangé. Mhm. Euh, vraiment après quelques années après ma defaat ko album bu nga xam ne Afia la tudd kooku man sama bopp maa arrangé sama bopp. Hmm. mu nekkoon ku waaye ñu nga xam ne daal lu musique moderne mujj gi daal lu mu wax mu ne noo dembel dembel dembel en tout cas hmm. voilà. voilà d'accord Moussa Gambien la woon. Moussa Gambien la de chance mais Sénégambien la parce que Moussa bëggul ñu wax ko Gambien musa Sénégambien la la bëgg a tudd boppam. waaw loolu daal loo xam naa ni Sénégal moom daal nee du Gambien parce que euh, Sénégal euh, Gambien la bon am na njabootu Gambien am na soxna Gambien am na njabootu euh, Sénégalais am na soxna sénégalaise bon soo xoolee taalibe Sëñ Tuubaa la te fii la jëbuloon donc man mii présenté na ma ay doomu Sëñ Fallou Sëñ Afia ak Sëñ Jili wax dëgg yàlla ñooñu présenté woon na ma leen donc le gros de son temps partagé entre la Gambie et le Sénégal donc mu loolu wax ni fii la amoon préférence donc moom pour Sénégambien la woon daal de manière euh, simple quoi. Hmm. alors lan moo ko jëlee Gambie ga mu juddoo nekkoon fa di def musique ñëw Sénégal intégré groupe bu mag bu mel ni Super Jamono. mooy Sénégal bi bu nekk ci moom rek parce que bon moom jàpp na ni Sénégal ak Gambie amul différence parce que moom dafa ni moom tubaab yi ñoom ñoom ñoo indi frontières yi. Euh, moom loolu doon wax mu ne ñoo affaire frontière Sénégal Gambie Sénégal ak Gambie amul différence parce que moom sénégalais yi da ngay sant euh, soxnaam moom Diop la sant ah euh, donc sénégalais yi da ngay gis ay sénégalais yu nekk Gambie sant Diop sant Ndiaye ñuy lekk ceebu jën c'est-à-dire qu'on a la même chose les même cultures les mêmes habitudes les mêmes marabouts donc moom mu ñëw directement rek mu fa mel ñëw Dakar intégré benn groupe. Hmm. noonu la ko jàppee woon. d'accord waaw ah, loolu la ko jàppoon. Hmm. lan moo nekkoon particularité am par rapport ak yeneen artistes yi nga xam. ah soo xoolee Moussa Ngom particulier particularité am nga gis c'est-à-dire sa belle voix il macha allah ku woon mën weloon et puis c'était un chanteur qui chantait juste et bon moom dafa doon en général ay thèmes nga xam ne man par exemple Moussa moom moo tax ma xam ma mën ak bëri na ci ay samay morom bi ma nekkee xale moo tax ma mën ayatul kursi ah oui xam ah moom moo tax mu mën ko parce que daf ko way ci morceau super jamono ñu ñëpp këru ko parce que ay fanu super jamono loolu lu nga xam ni moom lu kéemaane xam nga. Mm-hmm. waaw bon donc c'était un chanteur particulier bu nga xam ne ay thèmes yu de société ah, yoo xam ne daal ku ko déglu di nga ni sax artiste rek la woon. Mm. jàpp naa ne missionnaire la Euh, en fait euh, de sa nature d'homme euh, pour ñëw ku xam dafa war mun a ñëw pour am beneen mission bu nga xam daf ko dox entre Sénégal ak Gambie pour lien yi dëgër quoi xam nga li ma wax mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu moom lu mu gëmoon la d'accord parce que la preuve Sénégal la la wàccee liggéey waaw waaw ah, te Gambie la juddoo Gambie la juddoo la wàccee liggéey te ci lañ ko daj mm-hmm. te lu mu musoon bëgg la lu mu xam ne lu su su musoon wàcce liggéey nañ ko wàcc Touba nañ ko yóbbu Touba ah ouais waaw waaw ah Moussa Ngom. loolu moo nekkoon volonté mhm. non mus amul sax sikki sàkk su wàccee liggéey nañ ko wàcc te yàlla def mu feebar ñëw mu ñëw Sénégal bi mu ñëw il se sentit pas bien parce que jour boobu on a joué. Mhm. moom moo joué après ñun super jamono joué surtout Just For bi mu wàccee liggéey ci fii lañ ko denc. parce que su wàccoon liggéey euh, sa nu mu euh, je je doute fort ñu indi ko fii pour denc ko fii. Mhm. mais gis nga kon vœu bi mooy réalisé wul yàlla def na ko. dina mm-hmm. dinañu ñëwaat euh, ci ni ngeen dundee génn àddunaam boobu mais mm-hmm. euh, Moussa Ngom euh, sànq bi ma lay laaj particularité ñun par exemple bi ñu koy gis ak sama yeneen morom certainement bi ñu nekkee xale mooy njaxas yi mu daan sol mm-hmm. il était un peu spécial Euh, bopp bi jëfin bi waxin bi et tout bon soo ñu doon décriral Moussa boobu pour ñu mën a am un la personne waaw waaw mooy ñi ñi mu mel rek la mel moom Baye Fall loolu parce que bàyyi Fall moom ku ko xam-xam ko ci njaxas waaw loolu la gëm te lu mu doon gëm sol ñaari dàll yi moom mooy Sénégal Gambie loolu la ko doon matérialiser surtout loolu loolu waaw ñaari dàll yi moom jàpp na benn bi mooy Sénégal benn bi mooy Gambie bu fekkee Sénégal ñaari dàll la sol ci ci ñaari tànk la am nekk ci benn jëmm donc jàppale nañu ko moom Sénégal ak Gambie benn la loolu la ko loolu la ko doon matérialiser. voilà loolu mooy particularité. kon moom da li mu daan sol sax daf ciy doon communiquer. communication loolu. Mm. parce que moom loolu la gëm ba ba muy wàcc liggéey man bi mu koy mujj gis just for ci guddi gi mu wàcc liggéey ñaari daal yooyu la sol. waaw mm. ah, donc euh, loolu la moom lool mooy particularité am bon njaxas bi artiste loolu nag bon c'était pas un artiste parce que Baye Fall dañuy mm. jàpp ni Baye Fall yu ci bari dañuy def rasta mm-hmm. moom def na ay rasta mm-hmm. Baye Fall dafay sol ay njaxas moom doon na ay njaxas et puis voilà donc euh, taalibe Sëñ Touba la Sëñ Touba lay waxtaane moom lay way Maam Cheikh Ibrahima Fall lay waxtaane moom lay way am na ay doom sax yu mu ko tuddee de suite donc euh, sénégalais la woon gambien la africain la d' accord léegi nag euh, ñun tàmm nañu bu ñuy waxtaanee nit koo xam ni dafa marqué jamonoom euh, dañuy ñëw ci jikko yi euh, parce que ñàkkul tey am na artist yu fi nekk ñu ngi def loo xam ne Moussa neexu ko woon wala ñaanu woon dund ba gis artiste di ko def bala ñu yegg si loolu jikko yi jikko yi Moussa Ngom yow mi ko fréquenté yan ñoo la ci marqué nga jàpp ne tey war nañu ko mën a téye xëy na roy ci li ma xam daal mooy Moussa Ngom du fen du jëw Moussa Ngom lu ma neexoon ci moom soo ñëwoon di ko wax nit lu bon ci safaan sax day ree rek day ree quoi du ci tontu quoi di ci wax lu safaan. famoon jikko dañuy wax tey du ci sànni de selam. non non day am na ni mu koy waxtaanee euh, de manière très euh, humoristique euh, ba nga mu génn ci loolu daal. Hmm. donc nit ku amoon jikko yu baax la lépp daal en général daf ko doon daf ko doon ay métaphore la ko doon la ko doon waxee quoi moom. Hmm. ah en général yu bari ay métaphore la ko doon waxee mais yow soo muusee di nga xam ne lii bëgg na ci wax wala bëgg ci wax. Hmm. donc nit ku sincère lu mu la bëggoon wax sam daf la koy wax. te du la heurter du sa heurter say sensibilité du hmm. heurter nit ku amoon kersa aussi quoi. du nit ku nga xam ne doon na la xool dans les yeux di wax ak yow nii wala muy wax ay wax yu dëgër ak yooyu man daal xamee lu ma ko loolu wax dëgg yàlla waaw gëmoon boppam la aussi hmm. waaw. lan nga gis tey euh, jeune artistes yi di ko def te nga jàpp ne Moussa bëgg ko woon euh, ndax artiste moom des fois yi ñi leen di dégg yooyu bon euh, du du lu ma lay jàngal donc yan nga xam ne tey Moussa doon na ko bañ si milieu bi ba ñëpp xam ko si moom. ah non les artistes ils ont bon bon en général xam nga parce que artistes yi c'est un segment de la population très faible. effectivement soo xoolee ci mun mën jox les gens yi nga xam ne li ñuy stigmatiser artistes yi. soo xoolee en terme de en terme numérique nit ñi ñu koy def ci safan mm. ñoo ëpp téeméer yoon artistes yi mm. parce que man damay faral di wax soo demee ci kaso yi doo fa gis sax artiste mm. soo demee ci bistro yi ñu naan artiste dañuy naan ak yooyu ñi fay ñi fay fekk te ñuy naan du ñuy artiste wala suy artiste di jouer soirée si ñu amee mille personnes onze artistes ñooy ci kaw scène bi di jouer maximum ñuy naan foofu di def yeneen loolu ñu ay artistes xam nga donc stigmatisation boobu c'est ça dans l'inconscient collectif mais loolu amoon na sax amatul parce que loolu defe naa artistes yi am nañu beneen xar kanam bu ñu wone mm-hmm. mais Moussa moom en fait euh, li ñu koy gis noonu ku gëmoon diine la parce que Baye Fall la mais dafa doon julli te julli du ko raw a ah, contrairement a les gens qui le savent qui le connaissent très mm-hmm. savent que Moussa Baye Falloon accompli mais dafa doon julli. te waxtu du ko raw man dafa doon ni ma jullee damay def julli ba julli safa huit heures du ko raw donc jikko yooyu vraiment euh, taxul woon tamit mu man musuma ko xamal ay naan ak yooyu man musuma ko xamal loolu man. Hmm. sama bopp waaw wax dëgg yàlla li ma nekk ak moom yëpp. donc li ñuy wax ni li ñuy euh, accabler artistes yi ak yooyu en général man xamalu ma ko woon loolu. Euh, c'était un bon père de famille parce que xam naa soxnaam bi nekkoon fii ak nekk Gambie soxna Guèye xamoon naa soxna Diop am na ku nekkoon fii tam Awa Sarr ma ko doon fréquenté ak moom mais vraiment c'était un bon père de famille qui s'occupait de sa famille comme il le fallait. d'accord jaar-jaaru Moussa Ngom ci euh, wàllum way. Euh, ci ndoxteelam boo ñu si mënee ñëwal ak li nga xam ne dund ngeen ko fii senegal waaw ci ndoxteelam nag euh, man xaw ma ko fekkewu ma ko parce que ba muy jouer musique man juddu enfin euh, boobu commencé gu ma musique mm. bon man doon naa si daan télé bi ma nekkee xale lool boobu e, télé noir et blanc Gelawaar doon génn mu nekkoon ci benn orchestre gambien bu nekk juddu Gelawaar doon génn daal télé Sénégal foofu lañ ko njëkk a découvrir ñun ñëpp donc euh, mu doon wéy foofu la commencé woon dafa amul accoutrement boobu ak sa manière de chanter ak son gestuel un peu particulier ak euh, nu mu doon kiiwee foofu lañ ko xamoon c'était peut mm-hmm. les années soixante quinze soixante seize certainement je me rappelle plus effect de la date effective mais bon foofu lañ ko xamee euh, voilà après ba mu ñëw Sénégal bon li ko indi fii dëgg ñu xam ko mooy son intégration au Super Diamono mm-hmm. ah te boobu fekk na sax man mii commencé wu ma musique wala boog maa ngi jàng waaw ah, loolu daal laa ci xam jaar mais bon jaar jaar ci am na ay gàllankoor ay moment aussi yoo xam ne mbégte la woon ngeen dund ko wala mu am yum la ci nettali. ci mënee xam dara. il ne s'est jamais euh, euh plaint ah musuma euh, koo dégg. Moussa non non non musul jàmm moom lu mu jàpp rek lu ko dal rek. mu neex mu naqari jàpp na ni moom dafa loo wax c'est le talibé euh, mu neex lu mu naqari dafa naan le talibé. man loolu laa xamaloon Moussa doo xam ne ñàkk na xaalis wala am na xaalis cest ko dire que soo amee un milliard wala mu am dix francs tam c'est pareil c'est le amul différence loo ko wax mu ne c'est le talibé et c'était quelqu'un de super généreux lu mu am da koy joxe hmm. Moussa nga lu mu lay bu nga yore dix millions léegi nii nga ne ko danga ko soxla mu jox la ko parce que jàpp na ni yow yaa ko moom waaw hmm. ah, man de loolu laa xamee woon d'accord waaw lu la marqué ci Moussa Euh, Dembel ba tey euh, xëy na gise pen bi ma ko ne euh, Moussa ngoom laa bëgg a waxtaanee ngir ñu delloo ko njukkal à l'occasion du jour anniversaire de son rappel à mu ne ma woowal Dembel. ah Moussa ñëpp xam na ni que daf ma buggoon moom li ma màkk ci moom daf ma bëggoon bëgg bu moom daal kéemaane lool waa ñi xam ñi ñi diggante ak moom. ah ñu ci bari am na xam ni ñoom li mu leen doon wax ci man sax mu ëpp li mu ma doon wax ci man ah parce que vraiment daf ma bëggoon bëgg boo xam ne man sax daf ma jaaxal parce que man par rapport ak ni mu fréquenté woon ñu doon joué man maa ci gën a tuuti. parce que bo ñoom lakkal la maasee lool ak ñoom ay Omar Pène ak yooyu am ay gars mais man après laa ko xam mais lu ma marqué ci moom daal dafa bari parce que xam nga ni ki dundam moom sooy nekk ak moom yee marqué ci moom dafay bari tellement mooy lu ci gën superficiel rek ngay gën a xam quoi mooy li ma lay wax nii en général. Mm. mooy sa nature d'artiste accompli mooy le fait que mu nekk nit ku baax nit ku jullite. et nit ku un peu contrasté aussi parce que les gens pensent que peut-être Baye Fall du ñu julli Baye Fall du ñu kii mais moom lu jullit di def ak xan daf ko def ba pare nekk dans le Baye Fall à outrance xam nga li wax noonu. waaw mm. ah oui waaw loolu moom lu leer laa lay wax. nga ko doon dund waal Baye Fall bi. non Baye la woon Moussa Baye Fall la dafa doon julli da Baye Fall vrai la bu def ay ras bu nekk taalibe bu nekkul taalibe Baye Fall yi ba pare di julli di def woor di def lépp dëgg yàlla. loolu moom nit ku kéemaane lool ku kéemaane loon waaw léegi kon moom objectif si musique lan la woon est-ce que dépassé wul woon peut-être di way rek pour nit ñi di bekk waaw mooy li ma la wax sànq dépa lool parce que moom nekkul woon pour way rek moom li ko dafa jàppoon ni Sénégambie. Mm. Sénégambie bi moom c'était important pour a ah, waaw Sénégambie bi moom daf ko doon dund dund bu nga xam ni ba ma daf ko matérialiser ni ma la wax sànq rek euh, euh, pour mu bañ nekk redondant c'est-à-dire que Sénégambie bi moom mooy <laughs> Moussa Ngom daal Moussa Ngom mooy Sénégambie way na ko jëfee na ko euh, xeex na ci lu ne def na ko ba léegi loolu mi ngi fi. waaw loolu marqué na ma ci moom marqué na ma ci moom le fait que mu nekkoon tamit nit artiste bu mun a way et puis Moussa dafa mu doon wax Dembel bi ma koy defal je me rappelle euh, album c' était un c' pas un artiste cloisonné bu nga xam ne moom dafa jàpp ni moo lii la bëgg def déedéet. Mm. Moussa moom dafa lay wax ni Lawzo yow yëgal foo yëg naa la fu top loolu la ma doon wax. d' accord boo ko def loolu artiste que mu loo def rek moom di jëm na ci way. Hmm. waaw jege lawso wayal yëgal soo yëgee ma fekk la. kon liggéey ak moom yomboon na. yomb na parce que il ne te dit jamais dembel defal lii. il ne m'a jamais dit defal lii dafa la daan defal foo yeg ma fekk la fa. moo tax ci album boobu bon en tant que jeune j'ai un peu déliré def ay euh, album bi ñuy wax Afia soo xoolee ak album bi ñuy wax Banjul Banjul soo xoolee technique yi ci euh, Lamine Faye arrangé c'était des choses très très très très compliquées pour à ba actuellement nii damay toog yenn saa yi di ko déglu yaa trente ans su ma buggee def sax dafay métti ci man mm-hmm. te soo ko defee moom yoonam nekk ci foo dem rek mu ne la baax na ah waaw waaw Moussa moom c'était un artiste c'était un artiste accompli. absolument oui. alors euh, léegi Moussa li mu doon xeex ci diggante Sénégal bi wax nga ne jaraloon na ko lu nekk est-ce que mhm. tey loolu euh, yow mi ko xam boo toogee da ngay jàpp ne am na si ndam wala xëy na bu fi nekkoon dina dese tuuti euh, satisfaction maanaam beeg ci tolluwaay wi diggante ñaari réew yi bien sûr. am na ci ndam de am na ci ndam bu wér tëng parce que mm. nekk na Gambie ñu dañu ko Sénégal Touba <laughs> loolu du ndam. waaw satisfaction la te soo xoolee Séné ñun dañu doon dem Gambie euh, wala ñu jógee Sénégal di dem Ziguinchor. bac bi problème loolu pour ñu jaar fa hmm. c'est-à-dire que dans ton propre pays euh, man ma jógee Dakar dem Ziguinchor mu je pouvais faire dix heures de temps dans mon propre pays que ma jógee Dakar dem à six mille kilomètres en France hmm. c'est-à-dire que rapprochement ba Sénégal ak Gambie léegi am na benn pont boo xam ne pour ma jógee Dakar dem <laughs> Ziguinchor damay romb Gambie sans yëg ko. kon pont bi yaa ngi gis Moussa Ngom. ah waaw loolu yëpp ci ay projet ci lu mu bëggoon la. ah waaw loolu moom daf ko yàgg wax sax hmm. lu tax ñuy kii nag moom mënul jógee mënul comprendre moom sénégalais di jógee dakaar dem Casamance di romb beneen dëkk boo xam ne dëkkam la loolu aberration am la ci moom hmm. waaw loolu pour moom aberration la parce que mënul jógee nga traversé Sénégal jógee Sénégal traversé ko euh, traversé Gambie dem ci beneen Sénégal hmm. te nekk Sénégal pour moom Gambie ci Sénégal la bokk moom dafa doon wax loolu moom man daal gis naa ni que amul bokkul ci certainement Gambien yu jàppoon ni Gambien Gambien la Sénégal Sénégal moom Sénégal Sénégambien la woon moom daal loolu daal mën a wax. Mhm. Moussa Ngom ràññeeku woon na lool ci benn euh, moom genre musical la je m'y connais pas trop mais euh, Kasak par exemple ñu bëri si moom la ñu ko la ñu ko bëggee si moom la aussi la amee benn notoriété bi euh, au plan peut-être international lan moo ko xiiroon ci genre boobu. non c'était un artiste euh, moom nag dafa il était euh, les les les chansons traditionnelles loolu daf ci def daf ci màccoon loolu parce que loolu moom mooy soklam. c'est mooy soklu euh, carrière am. ci la dooree moo taxoon waaw ci la dooree commencé way ay kasek soo xoolee li doon way yëpp ay genre kasek la. ay genre ay kal la doon way. ah donc voilà donc loolu moom vraiment le fait que mu allié parce que ba muy faatu sax. mujj gi album yi mujj def sax yu ci bari ay album traditionnel la def na ci yu bari ak tay euh, le le le Sorano xaw ma naa lañ koy tuddee l'ensemble lyrique traditionnel de Sorano def nañ ko ay album ak moom mm. en version acoustique traditionnelle ak ay balafon ay kora mm. donc loolu lu mu moon la a ah, bon donc cumulativement à cela doon na ko boolee euh, ay mu def musique moderne mooy li ñu ko doon defal ak super jamono ak yu mel noonu donc euh, voilà quoi d'accord ñu ñëw léegi ci héritage u Moussa bàyyi na fi doom ju tudd Youssoufa Ngom. Mhm. Euh, bi muy gaañu sax euh, daanaka moom la àndaloon joué. tey mhm. est-ce que euh, relève bi Moussa Ngom préparé na ko. waaw waaw parce que xam nga li ñuy wax moom doomu doomu ñaay moom mënuloo koo jàngal loo ko ñaanal mu rëy da nga ñaanal mu yàgg rek mu màgg soo wala mu gudd fan su guddee fan dina dina rëy comme baayam bon amoon na doom am na doom vraiment bu ma xam xamoon ay boobu ay xale lañu wax dëgg yàlla ñoom euh, Youssoufa donc euh, waaw moom doon na ko parce que ku mun a way la jël na lugu papaam jël na un peu voix papaam te ko moderniser sax. Hmm. Euh, waaw ci li ma xam daal donc Youssoufa moom jël na papa ji héritage bi moom au moins. am na benn doom bu nga xam ne wóor na ma ni lu muy def mën na ko def te effectivement bu muy wàcc liggéey fii sax di gaañu fii jour boobu au jos foofu moog Youssoufa ñoo ne àndaloon. Hmm. muy way Youssoufa di way. donc eh. loolu mooy loolu mooy wane ni que peut-être au devant ci misaal le lekk est là mooy que man jóge na fi tey mais sur scène gis ngeen moom nekk ak sama doom bu nga xam ne bi ma fu jógee ah, ah kii mi ngi mi ngi nii daal wane na ko. Hmm. loolu moom wane na ko ci zaayir ni ñu gis ko wax dëgg yàlla. Damel Diop la ñuy dalal ci Demb ak Tay di waxtaane Moussa Ngom delloo ko njukkal euh, mi ngi génn àdduna euh, le 11 octobre quinze tey la def juróomi at Dembel lan la ñu xamul ci musaa Ngom loo ñu mën a wax lu ñu xamul waa ah, musaa de mooy lépp xam ngeen ko parce que daal <laughs> mooy li mu la ci wax rek parce que Moussa moom dafa woyofoon tellement que li mu nekkoon yëpp wane na ko mm. de manière très humble nag waaw dëgg yàlla c'était pas un cachotier c'était pas un sournois li ma la wax ci Moussa daal soo demee ci keneen moom la la wax seulement mm-hmm. nag du man rek maa xamoon xam nga c'est un artiste très populaire mm-hmm. qui qui valse entre euh, deux pays quoi yu nga xam ni am nañu ay réalité un peu euh, peut-être euh, un peu différente quoi mm-hmm. donc soo xoolee le système anglophone ak ak francophone xaw nañu wutee quoi mais bon peut-être Gambien yi am nañu Euh, benn meneen xalaat ni ñuy xalaatee moom sénégalais am nañu ni ñuy xalaatee ci ay comportement sur le plan sociologique mais moom dafa fexoon ba réunir loolu quoi si benn personnage hmm. donc euh, Moussa Ngom bon awma lu ma lay fàtte wax ci moom <laughs> peut-être si am na soo demee Gambie daal wax yeneen parce que y a des gens qui ont y a vécu plus avec lui hmm. a ah, euh, peut-être ay soxnaam lu ñu xam ci moom man du ma ko xam ay doomam lu ñu xam ci moom lu xam man li ma xam ci moom daal mooy lu tuuti loolu parce que dañ ko doon partagé parce que dañ doon jouer musique ensemble. d'accord si li ngeen jot a partagé muy seen yi ak yooyu lan nga si dund ak Moussa loo xam ne lu la marqué la lu lu neex lu extraordinaire nga xam ne tey da nga koy xalaat peut-être di di reetaan. Moussa non cest à moom li ma lay wax rek c'est-à-dire que dañu doon ànd ndeysaan mos nañu ànd je me rappelle boobu sax boobu sax je me rappelle excès excès gu excès gu ma sax su ko ay li ma la wax ni ay mille cent boobu defe naa ñëwagul sax super jamono wala boog mu doog ci génne je me rappelle plus mais daal euh, li ci nekk mooy Moussa Ngom moom wax dëgg yàlla man da ngay ànd ak moom tournée nekk xale xam nga da ngay am kattan yooyu xam nga voilà dem demoon nañ fi Koungheul ak moom ay Koupentoum yàgg na mais lu mu métti métti métti métti dem lay wax ni il ne se plaît jamais bu fekkee condition de voyage yi métti na yoonam nekku ci bu fekkee fi ngay tëdd neex na neex na lu hôtel ak dukki moom daal. dañ ko doon xool mais waa ji xoolal rek c'est une icône quoi mais il est avec nous il se rabaisse au même niveau que nous parce que euh, mu mu nangu bokk nu ñun ñu nekk ci même condition yi sans se plaindre donc euh, waa jooju kéemaane loon hmm. parce que am na autrement d'autres artistes de sa trempe suñu fël suñu leen dugaloon ci condition yi mun la taxaw noonu ñi ay xale lañ duma bokk ak ñoom wala ñi ak yooyu te ñun suñu ay nijaay lool mais <laughs> dafa nekkoon ñun lu muy def ñoo koy defandoo hmm. et sans restriction aucune, quoi, vous comprenez. Mm -hmm. donc alors euh, icône icône boobu nga wax euh, dama ci profito ñu ubbi benn parenthèse euh, wax nañu ne Youssou Ndour sax Moussa ngoom daf ko doon inspiré alors que tey Youssou Ndour c'est c'est la star planétaire donc Moussa mun nañu jàpp ne Sénégal peut-être su amoon raw gàddu jël na ko ci wàllu musique ci wàllu texte. waaw c'est vous qui me l'apprenez c'est bien. parce que bu fekkee ku mel ne Youssou Ndour daan na déglu Moussa ba dig mu inspiré man je me pose la question de savoir kan la Moussa Ngom inspiré fii. Hmm. parce que am na benn waay bu ñuy wax Omar Coly ah bu nga xam ne c'est un musicien. Hmm. su su taxawal fii di woy walla gannaaw nga di Moussa Ngom moo fi nekk. Hmm. Ah, mais man def jour boobu mais su mus na ñëw fekk ñu joué Just for You ñu mu ñëw jël micro bi di woy dañuy ñu man dama doon jooy parce que dama dama defoon nii Moussa Ngom moo nekk sama kanam. Hmm. yaa ngi dégg. dama defoon ni Moussa Ngom moo nekk suñu kan donc yooyu yëpp bàyyi na ko ci ay nit ki comprend hmm. donc euh, moom daal doy moom daal Moussa daal wax dëgg yàlla soxna si lu ma la ciy wax rek. wax dëgg yàlla dama koy fàtte parce que bon il m'a laissé de bons souvenirs daal. vraiment waaw souvenirs yooyu doo ñu si may tuuti loolu loolu la ñu bëgg. Euh, souvenirs yi fàtte naa sax xaw ma lan souvenirs yi daal <laughs> man daal xaw ma daal man daal lu souvenirs yi daal lu ma ci gën a am solo mooy que. Euh, comme dañu bokkoon euh, sëñ Fallou. oto mhm. man taalibe sëñ Fallou laa. Mhm. donc euh, dafa bëggoon taalibe sëñ Fallou ba noppi moom ay taalibe sëñ doomu sëñ Fallou yi ñu doon ànd ak moom. Mhm. mooy sëñ Jili ak sëñ Afia. moom moo a leen présenté. ci ci otoom na ànd nañu sax. waaw xëy na ñoom duñ ko fàttaliku defe naa sëñ ji sëñ Afia wala kenn daal Euh, af naa nekkatu fii wala yooyu je rappelle plus mais daal moom daal Touba daal ak mouridisme sëñ Fallou sëñ mm. Touba laa xam ni lu ma xam ci moom parce que loolu rek la doon wax mm. bon soo toogee moom du bon au delà mu lay wax naan que Sénégal bi Sénégal benn la Touba bi ñoo ñuy jaxasee ñoo ñu xaajale ak yooyu li mu doon dund yëpp ak di ma ko dund man di ko dund ak nit yëpp Serigne Touba la maam Cheikh Ibrahima Fall mm. loolu rek la doon wax parce que <laughs> doo nekk di wax ak moom FMI doo wax pro projet macro yooyu non non non musuma dégg mu waxtaan ci du intéressé wu ko sax ay affaire plan de développement peut-être Sénégal bi la koy wax hmm. mais leneen intéressé wu ko lu Serigne Touba Maam Cheikh Ibrahima Fall ak diine ji hmm. ak musique am bu mu doon def yoonam nekkul ci am na xaalis wala c'était pas un envieux wala kii am na ay milliards <laughs> moom moom loolu intéressé ko. Hmm. wax dëgg yàlla. ku daan ay nit la jotaay bu mu toogaan da daan xumba wala. fu mu toog da doo doo ñetteñ. da ngay ree ba sonn. Hmm. waaw ku mu doon lépp la aussi quoi wax dëgg yàlla. bu sa lépp la gis nga lépp boobu sax da koy def ci ci ci ci. way yi way. Hmm. voilà exactement voilà nii noonu. Ah, borom borom borom akasa borom akasa waaw taalibe la moom <laughs> taalibe alors fi mu nekk moom kontaan na wax dëgg yàlla. Euh, tey euh, njabootam euh, ban taxawaay la Moussa amoon ci ñoom boo xam ne yaakaar nga ne artistes yi jéem nañ ko si wutu est-ce que am na benn solidarité ginnaaw Moussa ci ci ci artistes yi nga xam ne ñoom la nekkaloon. waaw waaw am na am na parce que xam nga Moussa ko dafa metti parce que doo xam. ndax Gambie lañ ko ko war a defal wax ndax Sénégal lañ ko ko war a defal. Mm. bon bërki dem rek am na benn euh, Gambien promoteur euh, euh, bu mag bu ñu xam bu ñu wax Wàkk Diagne. y a trois jours woo dama fii téléphone xaw ma nu ma am suma téléphone sax ni ma démbal la ma dañuy def anniversaire Moussa dama bëggoon jot ko ma pen ah parce que damay def ani affaire bu am solo Gambie bu nga xam ni ñu def affaire bi te Omar Pène wax ci ma boole ko manager am ñu commencé ci waxtaan ci loolu mm. waaw donc euh, waaw loolu daal wax dëgg yàlla euh, loolu bokk na ci lu nga xam ni wax dëgg yàlla bon mi ngi nekk daal mi ngi nekk. Hmm. ba anniversaire bi nag wax dëgg yàlla. Euh, soo ci laajoon làpp dina la wax lu mu dund ak moom parce que lu mu dund ak moom dundu ma ko soo ko laajoon Omar Pène dina la ko wax. Mm. soo ko laajoon euh, dina la ci wax lu ëpp daal. d'accord ah, wala lu ci xam boog lu ma xamul ainsi de suite soo ko laajoon ku mel ne ñoom Edgar ak ñoom Moustapha Fall. Mm. parce que ñoom dañuy dund ensemble dañuy bokk di jouer ensemble pendant des années. d'accord bokk def ay album bokk def ay tournées. Euh, def ñoom xamoon nañ ko ci yeneen facettes yu nga xam ne certainement man du ko xam. yow xamuloo ko. voilà mm-hmm. mais li nga xam si moom peut-être pour jeexal euh, lan nga jàpp ne artistes yi tey wax nañ ko roy ci Moussa Ngom ngir jëm kanam les jeunes surtout. waa luñ ko luñ ko luñ ko war a mën a roy mooy que dafa gëmoon boppam. dafa gëmoon boppam gëm tradition bi parce que ñun. ñun moom dafa mus a moom musul nekk benn amul woon ay des tendances occidentales dire que sur le plan vocal jéem a way li tubaab yi way hmm. soo xoolee li muy way il n'a jamais eu ces tendances là il a toujours gardé il a toujours voulu garder son cachet africain hmm. soo xoolee léegi sénégalais yi ci bari dañuy jéem a way dugal ci ay consonance un peu européenne wala occidentale wala américaine hmm. mais moom Afrique la doon way Sénégal la doon way Sénégal la doon way ci sa ci léppam daal donc ñu ca vrai nekkoon ku nga xam ne dafa bëggoon ñu fonk cosaan revaloriser cosaan parce que moom nee na lépp lu ñu tubaab yi def lu baax rek Afrique lañ ko jëlee. waaw mm-hmm. ah, donc moom euh, africanité boobu dafa nekkoon ci moom mu ko doon bëgg pour sénégalais yi ak gambien nekk ci loolu. parce que moom jàpp na ni tubaab yi ëppale ñu daal dañuy jël suñu affaire def euh, transformer ko autrement bu comprenez. Mm-hmm. Euh, donc moom daal bëgg na sénégalais yi africains yi de manière générale gëm seen seen nature parce que dafa wax Sénégal suñu amee sëñ Touba am nañu lépp. donc amul kenn ku ñu mun a gëm wala kenn ku ñu gën a mun a gën ci àdduna mhm. loolu mënul am te am sëñ Touba am Cheikh Ibra Fall am maam moodo am ñeneen moom loolu doon wax mhm. donc dafa bëgg fàttali ñi rek nañu gëm seen bopp nekk ay sénégalais yu nga xam ni wala ay africains yu nga xam ni vraiment li ñu am fii yàlla defal ñu ko nañ ko valoriser au lieu ñuy topp tubaab bi lu nga xam ni ñu ci bari dafa doon wax tubaab bi dañuy ñëw fii mhm. jox ñu ay tuuru seen tuuru bopp dafa doon wax loolu mu ne ma man dafa ma jaaxal Afrique tubaab bi dañuy ñëw fii tuddal ñu tudd ñu ay Paul tudd ñu ay Richard tuddal ñu ay ñeneen te ñun tudd ñu noonu waaw ñu dem Amérique yóbbu suñu maam yi tuddal leen ay turu américain tuddal leen ay sant américain te ab mm-hmm. tuddee wuñu noonu moom lool daf ko musoon metti mm-hmm. nee na moom comprendre loolu quoi que benn africain bu nekk américain bu tudd Chris Brown wala yooyu kooku wóor na que ni Gambie la jógee wala Serekunda la jógee donc loolu lu mu doon xeex la pour wane ni que africains yi de manière générale. Mhm. une fois que suñu uniree seen ay conception wala seen ay seen ay idées danañ demaat ba yàlla place bi mu leen mayoon ci àdduna bi ñu jëlaat ko. que dafa jàpp ne africain daal euh, moom dafa doon wax ni fii la tubaab bi wax dem nañu ba nangu ba bañ mais jàpp nañu que l' Afrique est de l'humanité te mhm. loolu kenn mënu ko dindi te lool loolu la doon wax moom. waaw panafricanité moom. umpul euh, woon kenn absolument pas absolument pas ça c'est clair moom ñëpp xamu na que c'était un moom accompli loolu moom daf ci demoon sax ba daf ci daf ci xër daal. Mhm. mais seulement à son niveau am na lu mu ci lu ci def rek quoi. Hmm. Mhm. d'accord fi ñuy jeexalee Dembel mooy naka ngeen dundee génn àdduna Moussa Ngom jour boobu. audience for you le octobre euh, waaw le 10 ngeen joué ci guddi gi euh, mu féete wale 40 ans si je me trompe après ngeen yeewu nii rek ñu ne leen voilà dem na euh, naka ngeen ko dundee effectivement parce que man bi je me rappelle ce jour là bon je n'ai pas malheureusement pu l'approcher nii physiquement parce que dafa nekk dama ñëw fekk ñoom jëloon la première partie ñoom ñi nekk fële Euh, moom ma ñëw fekk sur scène parce que je savais que ñoom dañuy ñëw dañuy ñëw def première partie. Mm. dama ñëw malheureusement fekk mu nekk ma scène bi man maa ngi nekkoon euh, ci ci côté ba mm. donc moi je l'ai pas vu mais je vois que ndeysaan Moussa c'est la première fois que je le voyais chanter assis bon il n'était pas bien malgré mm. xam nga nit ni à quelques heures de ta disparition tu étais malade te yaa ngi woy waaw xam nga loolu lu kéemaane la. en général sur scène dafa doon yëngatu. def ambiance mais ce jour-là il a chanté il était assis mais il s'est efforcé de chanter man gis naa ni que Moussa mi man je me disais que bon affaire bi c'était dû au euh, à la fatigue du voyage wala yooyu quoi. Hmm. kon Gambie la jógee ñëw Dakar. Gambie la ñëw Dakar jour boobu la ñëw joué. d'accord. waaw bon léegi ñu kii après bon comme. Euh, gars yi il l'aimait beaucoup ñun on devait on devait de suite après jouer euh, ba mu woowee ba pare gars yi nekk fële ci moom xam nga euh, di photo ak moom di kii le temps que ñun public comme le public était assis. ñun mhm. il fallait que ñu def suñu prestation. d'accord bon me disant tout le temps que moom day toog ba suñu joué ba pare après wala boog suñu joué mu ñëw def bëf. Mhm. li ñuy wax jam session ci ñun mooy ñëw weer Omar Pène comme ça se faisait naturellement. Uh-huh. mais man xamuma woon ni effectivement euh, qu'il était malade à ce point bon bi ñu joué ba pare bi ñu génnee ma ne ana Moussa ñu dem nañu parce que vaar daf leen sonal mais man je n'avais pas eu vent de sa maladie quoi. d'accord man 9 heures du matin lañ ma ban damay faral di def silencieux sama téléphone. ce jour là euh, dama ko bàyyi noonu rek. ak suñu ma adjoint manager bi ku jox moo dafay moom woo ni ma may démbel euh, yëg nga nouvelle ma ne ko nouvelle jàmm lan mu ne ma ah man ko non man c'est toi mu ne ma Moussa Ngom est mort man ko ban Moussa Ngom. man man man bi ñu nekkaloon démb si guddi. léegi à quelques heures. waaw waaw parce fajar waaw c'est vrai. mu ne ma ma ne ko non Moussa non ça c'est un canular c'est impossible mu ne ma non après ma ne ko mu ne ma renseigne toi ma woo sama benn xarit mu ne effectivement. Hmm? parce que euh, ki ak moom ba système ki ñuy wax Kéba. Euh, man amoon naa numéro téléphone bi ma ko woowee mu effectivement paa bi bi ñu ba pare. Euh, il était mal en point. Mm. Euh, ñu yóbbu ko hôpital jour 3 il est décédé là-bas. loolu moom mm. loolu laa ko yëgee. loolu laa fexe nañ ko nag fexe na nag eh, yàlla ñaanal nañ ko ñaanal la boppam boo ñu denc ko ci tubaa mu fekk fii Sénégal. Mm-hmm. Euh, mu mu defee ko fii ñu ñu denc ko fii man daal loolu laa ci xam. Mm. comme comme quoi les artistes bon ils ils vivent ils partent ils kenn kenn ko. waaw sonalul kenn il est parti c'est-à-dire il a il est décédé euh, au champ quoi au hmm. combat waaw ci kaw seen <laughs> loolu loolu dale euh, donc euh, li mu bëggoon daal nit moom daal lu mu lay xool soxna si lu kéemaane hmm. moom li mu bëggoon mooy que mu dañ ko Touba hmm. yàlla yombalal nañ ko lu ñu taxol mu mé ci métier am la la wàcce liggéey xam loolu kéemaan mu dem Touba ah sëñ Fallou waa kër sëñ Fallou ñoo ko denc. Mhm. waaw loolu nag wax dëgg yàlla. lan lan la bëggoon lu ëpp loolu. waaw li mu bëggoon de am na ko. Ah, <laughs> su ñu xoolee li mu bëggoon jërëjëf Dembel <laughs> ñu ngi lay gërëm xanaa bàyyi la rek nga tëj soo amee loo xam ne bëgg nga ko yëkkati comme ay kàddu pour euh, tëj waxtaan bi si Moussa Ngom mi nga fréquenté doonte nee nga am na ñeneen ñu ko gën a xam mais xam naa ne euh, du du du du euh, hasard bu gise pen waxee ne naa la jël yow yow Dembel voilà donc am na loo xam ci moom peut-être ñu bàyyi la rek nga nga tàggoo ak loolu waaw waaw maa ngi leen di bi ci affaire bi parce que vraiment Moussa Ngom bon man dama ko xamoon lu bari un axe xam ni du yow rek yaa mën a prétendre xam nga parce que hmm. su mu nekkoon dafa bari ah Gambien yi xam nañ ko lu ma ko xamul bon soxnaa ngi xam nañ ko lu ma ko xamul waa super jamono am nañ lu ñu vivre ci moom lu mu donc mais man xamoon naa ko parce que moom moom mu bëggaloon boppam hmm. lool lool lool lool waaw Moussa dafa bëggaloon boppam moom loolu eh, moom xam nañ ko hmm. waaw bu ko eh, maa ngi koy ñaanal fu mu nekk gënal ko fu mu nekkoon fii ah sëñ Touba teeru ko àjjana ak Mame Cheikh Ibra Fall di ko ñaanal nag vraiment di wax ni que artistes de manière générale li ñu rey ci moom parce que c' était un talent pur. Hmm. bon j' espère nag effectivement parce que bi mu liggéey ba quelque moment doomam Youssoufa woo na ma effectivement euh, bëggoon ñu def ay projet parce que loolu lu ko papa gi doon wax la. Hmm. te xam naa ne loolu moom dina ñëw suñu fi yàlla rek loolu dañ ko mën def et euh, di wax ni ñun Sénégal a Gambien nañu jéem a matérialiser ne ce matérialiser ne ce que. pour sa mémoire. Mm. Sénégambie boobu mu nekkoon ci lu mu gëm ñu matérialiser ko parce que loolu mooy li nga gën ci ñun gën ci ñoom. parce que hmm. ñun ñëpp benn lañu. dëgg la waaw pour suñ ko mun a def daal euh, au-delà de Moussa Ngom de sa personne ak de hmm. sa mémoire sax. Hmm. Euh, lu mu doon liggéey la yàlla ko yàlla defal. ah te soo xoolee yàlla defal na ko sax parce que seen président bi ah, Adama Barrow. waaw la prêté serment. ba mu gisee loolu xam itam fii la ñëw Gambie itam bi ñu jaaxlee Sénégal a njëkk a jóg mais donc loolu Gambie ak Sénégal lan ma ci mën a nekk leneen lu dul lii mm-hmm. Mm-hmm. man samay maam am naa fay maam amul Sénégalais bu amul euh, mbokk Gambie dix inversa loolu amul mm-hmm. donc euh, xam nga tubaab yi ñooy ñëw dugal man je ne comprends pas tubaab day ñëw ci même famille ñi sant Diop ñi mu jël leen ñu yóbbu leen fële ñii mu jël leen yóbbu leen fële loolu tubaab rek moo ko mën loolu am na mooy Sénégal Gambie waaw mhm. ah, loolu dafa xaw de Sénégal mi ngi mi ngi ci biir Sénégal Sénégal waaw. moom loolu comprendre woon loolu moom dafa ni man Laozo man comprendre ma lii quoi. waaw pour nga dem Ziguinchor da ngay jaar ci beneen dëkk. après nga demaat ci sa beneen partie wu dëkk waaw. non bu fekkoon da ngay dëkk jaar ci beneen sax mais da jaar ci biir. ci biir dëkk nga xam ne sa biir dëkk la. loolu aberration la ci moom. mu ne mm-hmm. nee na ma man mënu ma comprendre Gambie mi ngi nekk ci biir mu ne ma Dembel loolu la wax mu ne ma Dembel Sénégal la Gambie mooy làmmiñu Sénégal waaye nit ku amul làmmiñ wax. <laughs> waaw loolu la <laughs> <laughs> moom soo ko xoolee ci carte bi de moom day am dëgg. Ah, mu ma ah, fii noonu. jërëjëf jërëjëf Dembel ñu ngi lay gërëm bu baax a baax yow itam si li nga jot a xamal si Moussa Ngom yéene bi rek moo nekkoon xamal ko ñi ko xamul fàttali aussi li nga xam ne def na ko parce que c'était pas un mm-hmm. artiste comme les autres centre amoon particularité ñun ah. bi ñu koy xam peut-être ay xale la ñu mais li ñu marqué ci moom euh, am na lu bëri loo xam ne waxtaanee waat nañu ko donc ah jeunes yi nga xam ne dañuy dégg Moussa Ngom Moussa Ngom euh, peut-être euh, dina am lu mu leen jàngal ñu lay gërëm bu baax a baax si waxtaan bi gërëm aussi gise pen mi waral xamante bi Euh, voilà ñu lay sant bu baax kon euh, mu nekkoon Dembel Diop musicien ak compositeur euh, doon waxtaan ak ñun ci Moussa ngoom mi mu jëflante lu bari ñu doon ko waxtaanee tey nag ngir delloo ko njukkal juróomi at ci tey ginnaaw bi mu génnee àdduna fukki fan ak benn weeru octobre atum 2015 ci Ndakaaru gërëm jaaw jàllo mi fare woon ci jàppandal gi gërëm leen bu baax itam yéen ñi doon teewlu Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi jërë ngeen jëf ba beneen dimanche ñu waxtaanee leneen ak keneen